salaamaaleykum mbokk yi dalee nag jàmm yéen ñi taamu la 90 international ngir ay xibaar yu leer te wóor bu ngeen taxiloo tuuti rek ñu jukki leen di gën a fës ci bi la jotaay xibaar mbetteel yi Kaolack ak yu ci seen ay njiite ya leen teewaloon ni ki démb ca ndaje ma njiite réew mi doon amal ca jam ñaajo ngir wut saafara ci ñàkk xëyum ndaw ñi daa ngeen leen dégg ci biir xibaar yi campagne yu njënd meeg njaayum gerte gi tëj nañ ko ni ki euh, barki démb daal di ubbi waale li nga xam ne rek moom mooy campagne yu sëddaleem jiwu gi la yi xam ne nag mooy sonn nañu ci tuutal ak toroxal bay jógee ko ci opérateur économique yi tax rek ren ji daanu ci jël seen ay matukaay boole kooku di xaar jiw bu baax daa ngeen ci dégg Cheikh Babacar Dieng wàllug wér-gu-yaram unité scanner mobile hôpital régional El Hadji Ibrahima Niass daloon naka ni ki démb ngir jàppalante kaskanu Mbose Kumba jigéen rawatina néew ji doole yi mu amee ci ndimbalal docteur Rose Wardini ak euh, partenaire daa ngeen ci dégg Cheikh Tidiane Diagne gëstu bés bi tey jii lañ cey waxtaanee bokk Xaadim daa ngeen ci dégg soxna Ndeye Fatou Cissé waxtaanu koor daan ci ànd ak oustaz Mohamed euh, Sow kooru gay moolum géej daan ci dalal Bara Diop te bitim réew daanu fa fekk Cheikh Tidiane Sarr tàggat yaram Serigne Moussa Kane yëglekaay yi xëy tey ji mbiru El Hadji Seydina Omar Cissé lay doon li lépp yembe mbokk yi xibaar yi daal di buur ñu ñaanalante wala tàllu lu ñu dikk ak yéen ci àttal gi xam fatigué gannaaw bàkk bi lay doon Le journal Ndeye dalee nag jàmm mbokk yi yéen itam Alfayda kaddu gi di bàyyeeku fii ci meuble Cheikh Imam Assane Cissé studio Aly Momar euh, Lo Codou Seck madame Keneme moo jën ak man ci wàllu xarale gi ba dégg-dégg bi man di leer nañ leen ko waxee noonu lañ koy euh, doore conseil présidentiel lañ ko duppee woon moom ndaje mañ doon amal niki démb ca euh, Diamniadio ngir wut saafara ci ñàkk xëyum ndaw ñi waaye nag discours ba nga xam ne rek régional de la jeunesse bu Kaolack yëkkati na ko fa gis-gis ndaw ñi wute nañ ci lool ñu bëri nag jàpp ne yoon bañ ko doon xaar da Cheikh Tidiane Sarr. kaddu gi benn la ci ndaw yu bëree bëri fii ci diwaanu Kaolack dañoo am gàcce lool ci discours bi nga xam ne yëkkati na ko moom régional de la jeunesse bu Kaolack ñu koy wax Silmang Ndiaye ci daje bi nga xam ne président de la république woote woon na ko ngir ñu waxtaanee wàllum xëyu ndaw yi ci mim réew di Sénégal Momadou Diassé kenn la ci ñoom. conseil bi de li ma ko gisee démb moom a ma ci benn yaakaar parce que Macky mënuñu ko fal am ci moom yaakaar depuis yaakaar naa ni xëy bi du jël ay xaalis di ko jox nit ñi mooy tax nit ñi am xëy ak ni ko doxalee ni pour man daal coono la coono boo xam ne du jur benn la boolu ci ak affaire politique kese lay doon wala yàqum boo xam ne nee na d'accordul ci discours bi ne wax nañ ko fa ak jigéen moo di di président conseil communal jeunesse bu Nioro. waaw di rafetlu initiative bi président jël parce que wax dëgg si yàlla lii dañ ko nekk nañ ci région yi xam ne si bokkoon ci gën a dellu gannaaw ñu aussi dañ ñu doon xaar ci foofu te dañ ci sawaroon tamit loolu tënk nañ ko le président yóbbaale mais à ma grande surprise man dama seetaanee en direct télé wax dëgg fi yàlla suñu président fañ ko doon xaar fekkul ñu ko ndaw yu bëree bëri gis ne beneen gis-gis wala sax beneen leadership lañ soxla si ñi leen teewal gis-gis boobu ku ko am moo di ndaw li ñuy wax Serigne Mamoun Thiam di président jeune leader optimiste la question que je ñoo wax ni ñoom ñoo représenter la jeunesse dans le sens mathématique du terme parce que je ne peux pas concevoir de nekk un jeune nekk si sa localité di gis toutes les difficultés yi nga xamante jeunesse bi ñu koy dund et nga am possibilité toog ak le président de la république muy jiiti réew mi et que yow wax problème véritable yi nga xamante sa jeunesse mi ngi koy dund. waaye nag seen xalaat yooyu wute naag lool kii ñuy wax Abdou Lahad di ab ndaw moom mu jàpp na potentialité économique yi nga xamante ne région de Kaolack am na ko mu nekk ay niche d'emploi président de la république taxaw tem ngir indi saafara ci wàllum xëyu ndaw yi jaarale ko si slogan bu bees bi ñu koy wax na bar ànd ak programme bi ñuy wax xëyu ndaw yi jaajëf Cheikh Tidiane Sarr ci loolee sax la ñuy desandi responsable politique bi di Abdou Lahad Diouf nekk fii ci Kaolack moom nag la mu ca yokk mooy discours bi jaar na yoon ndax lépp lu Kaolack di teewoo rawatina lii di port bi Silmang Ndiaye tudd na ko fa ñu teewlu koog Cheikh Tidiane Sarr. bi mu waxee potentialité économique aussi évoqué na ay secteurs et parmi ces secteurs clés tudd na ci agriculture tudd na ci élevage tudd na ci artisanat tudd na ci le secteur l' industrialisation mais surtout le secteur de la pêche bu ko tuddee na ñëpp xam directement port de dina am emploi yi par rapport emploi bi nga xamante moo nekkoon la question du jour donc gis ma fa benn yoon discours am lu ñuy wax spécificité Kaolack def nañ CRD jàngat nañ def nañ diagnostic olof di ko wax jàngat jafe-jafe Kaolack ak lan la Kaolack am ci ay possibilité pour di régler problème chômage des jeunes donc ci aspect boobu évoqué na li war a évoqué comme ni ma ko wax sànq secteurs yi nga xamante jël en compte de jeunes loolu kon lu am la

là ñëpp a ko en tout cas c'est point de Abdou Lahad Diouf moom nag wute na lool gis-gis ak dawalkatu moto jakartaay ci Kaolack ñoom nag la ñu ah, jàpp mooy ko doon xaar moom Silmanga Ndiaye fekk siw leen fa waaye nag xamle nañu itam ne ña ngay xaar tàggatu gunge ak jàppale ci nguurub Sunugal Mamadou Mbodj mooy ku leen jiite mi ngi ci micro Cheikh Tidiane Sarr. parce que li mu gënoon soxal nag mooy représentant Kaolack bi ma grande surprise yoon mu tudd fa le mot Jakarta te kii di yaakaar naa ne au niveau de la jeunesse Kaolack waas xam nga ne Jakarta moo lay jëkk a nous tournons aux environs de vingt mille conducteurs de vélo taxi bon nous pouvons dire vingt mille jeunes ñu ngi yëngatu ci boobu noonu bon loolu nag vraiment daa ko ñaawlu mais heureusement on a eu un avec euh, le président national des conducteurs de vélo taxi bi mu duggee ci question yi moom laa dégg mu abordé problème mu Jakarta en fait xam nga am nañ ci yaakaar parce que président euh, mën naa ne am na lu mu jàng lu bëri loo xam ne xëy gën a gaawee parce que ci secteur bi ñuy yëngatu muy Jakarta bëgg nañu am accompagnement ba pare aussi am ay formation parce que booy xool suñu métier bi ñëpp a nekk y a des diplômés y a des bacheliers des maîtrises des diplômés ñëpp nekk suñ toll ñu ñëpp bëgg nañu accompagnement ak ay formation yoo xam ne buñ leen tàggatee dinañ mën ubbi seen entreprise te dina leen permettre ñoom ñu mën def sax des recrutement pour yokku li muy problème yi mooy l'emploi mi ngi noonu ca geneen wàll ga nag askanu Mbossé Kumba jigéen nag mbégteeg bànneex la ñu nekkee jamono ji gannaaw ba nga xamee ne rek kuréel gii di Mitik Africa ci lëkkaloom ak Madison International indilee ab machine ba ñu duppee unité scanner mobile foofee ca hôpital régional El Hadj Ibrahima Niass ndaje bi nag waa këru docteur teewe woon nañu ko waaye itam këru docteur ya ca réewu Maroc itam teewe woon nañu ko ak Cheikh Tidiane Diagne. ab bis bu mag la mu ngi jaaree ci bunt bu mag bi ci biir hôpital régional El Hadj Ibrahima Niass bu Kaolack bi muy yegsi nag ñëpp am mbégte unité scanner mobile ci biir hôpital régional El Hadj Ibrahima Niass bu Kaolack ci ndimbalu docteur Rose Wardini. tey nag fii dama fi ñëw ak sumay partenaires yi nga xam ne maa ngi leen fekk Guinée Bissau ñu jox ma mbégte bu rëy ba ñu nangoo ñëw fii ak unité mobile bi ngeen di gis nii ci gannaaw nga xam ne scanner de dernière génération moo ci nekk ñu nangoo ñëw tey fii Kaolack ndax Sénégal bi yëpp Kaolack lañ ci njëkk a taamu ànd ak man fii pour jàppale tey néew doole yi pour scanner. boo duggee ci biir bis bi mu nekk ay machine ñuy xoolee wér-gi-yaram yi dafa seddu guy ay techniciens yu bàyyeekoo ci réewum Maroc ñoo ci nekk ñoom ñi seen xam-xam màcc jëm ci wàllug wér-gu-yaram seq nañu ñoom waxtaan. pour la manipulation du scanner. waaw ngir wàllum jëfandikoo machine scanner bi à distance comme ni ngeen ko xamee am na kaaraange bu wóor a wóor ndax liggéey bi dañ koy def si ay photo photo yooyu nag moom la radiologue bi di jëfandikoo ngir mun a xam lan ak moo la dal daal di ko jox malade bi ñëpp ñu fi ñëw dañu ànd ak cawate ak wóolute bu mot sëkk si bii di ndaxte scanner scanner bi machine liggéey bi ñu mel dañ cee ànd ak médecin yi nekk ci biir hôpital régional El Hadj Ibrahima Niass bu Kaolack docteur Amadou Diallo mooy médecin chef imagerie bu hôpital régional bi ñu mel. ki ñëw soxla scanner fii bari na lool lool par jour ki am moyen pour fay ñu am vingt patients ki amul moyen pour fay ëpp na loolu mais bii nii day ñëw dimbalin ko scanner bi benn appareil day xool nit bi gis feebar ki am si biir yaram bi yëpp scanner la ñu def scanner bopp den biir yàq. ñu fàttali ne bis mobile scanner bi ñu mel nag benn ay bés la war a am fii ci diwaanu Kaolack liggéeyam mu tàmbali ko ñaar fukki fa ak benn ci weer wi ñu nekk bu ñu sukkandekoo ci ki yombal liggéey bi di docteur Rose Wardini mu ngi woo yeneen région yi ñu ñëw saytu seen wér gi yaram. fii ba Kaffrine nag Fatick ak fu nekk mën nañ indi seen i malade ñu bénéficié wu ci li nga xam ne moo di scanner bi. Cheikh Tidiane Diagne laata ñoo ay yegsi nag ñoom waa région yooyee ñun dañuy desandi ca l'hôpital ba seeti rek njiital conseil d' administration bu hôpital ba jiite itam conseil départemental bu Kaolack moom nag jaaxee na fa rek woo yeneen responsable politique yi ngir ñu rey ci jëf joojee Rose Wardini ngir jàppalanteeg réew mi waaye itam jàppalanteeg hôpital ba xam la itam ne ñoom lépp lu leen ci war rek daañu ko ci def moom président Baba Ndiaye ak Cheikh Tidiane Diagne. fu ñëw indi réponse ci gis-gisu président de la République ne nit dafa am solo ci politique am te nit lu mu am xam-xam am qualité qualité fekkee ne la soxna Rose Wardini bi nga xam ne fii la dëkk bi suñu jigéen moom moo ñu ni opportunité boobu bu ko indee it gouvernement rek du sotti waaye nag dafa fekk ne suñu gannaaw am nañ fi directrice boo xam ne ku baax la donte doon jógee mission mu les dispositions ak son ba tey ñu mën a recevoir yi fi gën loolu dafa indi réponse si gis-gisu président la république si yéeneem Sénégal am population am ay nit yoo xam ne ni ñu wér lañu ñu am xam-xam a a def xam ne li muy indi Kaolack ñun day jiite waa Kaolack duñ ko fàtte mukk si àddina waaye waa Kaolack yi duñ fàtte mukk que le premier bi xam ni gan dafay déplacé wu def ay scanner di ko mayee fii la dooree si Kaolack si biir Sénégal mosu fi am yàlla yéwén muy doog am fii kon nag loolu yàlla na continuer ba ñu ma am yenn relation yoo xam ni dina gën a yaatu si wàllu équipement yi moom nag mi ngi si day waaram ndax bu yàggut li mu mujjee wax mooy jigéen seet si la ak ordonnance bu yoree enveloppe rek sa fit dafay dem nga jàpp ne mi ngi si ay chimiothérapie donc loolu nag bu amee ndimbal boobu kon ñun mënuñ ko fay doomu aadama yi mënuñ ko fay moo tax ñun nit ñi gërëm ko sant ko ñaanal ko yàlla wax dañ taxaw si wetam ànd ak moom si mission boobu mi mission humanitaire si biir Kaolack mais bu nekkee fenn fu du dañ fa ànd ak moom ndax dimbal nit jàppale nit bu mbir yaram loolu amul fayar moo tax Africa nga moo jiite délégation Maroc ñëw toog fii gën tey it yemut foofu ne bu jaree ñu yokk ñaari fan ko yokk pour que demande président Baba Ndiaye directrice su hôpital ba moom woon na askanu Kaolack ngir ñu fexe dem bindu ji ci mutuel de santé yi waaye itam fexe ba ndimbal loolee bañ leen a raw benn yoon sàkku na itam ci yeneen i a ngir ñu dugal ci seeni loxo donte nag nguur gaa ngi def gannaaw boobu leen sasee ba noppi jotu Saax Kebe sas bi ñu état Sénégal sas mooy fexe ba population yi ak fu ñu mën a nekk ñu am des soins de qualité te ñu man cee jot loolu nag li ci ëpp mooy ñun nan nga ñuy doxalee hôpital bi ba li ñu fi yàlla dénk ñu doxal ko ba nit ñi man cee jot mais itam dafay am des partenariats yoo xam ni ñoo ngi ñëw partenariat yooyu aussi bu ñëwee danga nga koy këf pour dimbali doomu aadama yi donc mbir mi noonu la demee docteur Rose Wardini présidente Médecins international moom mooy buntu bi moo indi opportunité bi président Baba Ndiaye boole si hôpital partenaire marocain yi sawar ci ñëw Sénégal ñun tamit ñu jël ko pour que population yi koo xam ni sa loxo jotul sa ginnaaw nga war a def scanner te amoo loo ko faye nga ñëw bindu ñu defal la ko di vingt du 22 vingt 28 camion bi mu ngi fi yeneen buntu aussi man na feeñ parce que hôpital El Hadj Ibrahima Niass ni ma koy waxee hôpital bu neex a dimbali la ndax ki neex a dimbali mooy ki xam fu mu jëm ñun xam nañ fu ñu jëm xam nañ li ñu bëgg a def déggoo nañ ci Sénégal mu ngi def doogeem bëgg nañ aussi ay partenaires ñëw def si seen dooge pour développement boobu gën a gaaw loolu la ñuy wax di ñaax population bi nag ni lii occasion la mais li gën mooy ñu inscrire ci mutuelle de santé yi bu ñu inscrire ci mutuelle de santé yi am couverture sanitaire universelle bu la hôpital laajtee juróom-ñetti junni xëy na yow juróom-ñaari junni ngay fay donc loolu aussi gouvernement Sénégal teg na ko nañ ci gën a jàpp gën a vulgariser loolu pour ku nekk am sa kiiraay ci santé. yéen a ngi déglu yi ci Alfayda 90 ñaareelu pàcc bi ñu ngi ko jagleel wàllu koom junjoon nañ leen ko campagne njënd meeg njaayum gerte gi tëj nañ ko waaye ubbi nañu campagne yu sëddaleem jiw gi laata ñoo def xaymaaka taxaw seetlu mu yab bilang ñoom béykat yi ñoo ko def ci kanamam moom Cheikh Ababacar Dieng campagne ñu njënd ak njaayam gerte gu atam 2020 2021 gannaaw ba ñu ko tijjee ay weer a ngi nii tëj nañu ko nag ni ki bërki démb ba ñuy def bilan bi ba dajee ak baykat yi ñu ne ñoom kay kontaan nañ Ibrahima Badiane mu jiite mbootaay gi leen takkee ci Kaolack Kaffrine Fatick. campagne bi tëj na mën naa ne béykat moom jooyul xam nga ñun ñoo doon ànd ak yéen fu ne ñu yuuxu dañ doon yuuxu mooy dangay yore sa gerte doo gis foo ko jaay loolu amul ren doon yore sa gerte mbapat ko loolu amul ren bon impayé amul kon mën naa ne béykat bi moom amul lu mu wax particulier yeeg ñooñu ay béykat moom mu ko prix bu baax di toog nag di xaar wax dëgg yàlla sant nañ yàlla diggante ñaari campagne yi nag daanaka soreewun bi ñuy jënd ak jaay gerte gi ak bi ñuy tijji ngir waajal nawet bi maanaam séddale jiw yi fi mu nekk nii dëgmal nañu ko béykat yu bëri fukki fan yu mujj ci koor gi ci lañ nar a tàmbalee ruuj seeni tool laata ñu yegg ca bàq ba nag lii la producteur yi Saalum yi bëgg ci nguur gi mu bàyyi ko xel waaye nawet ku koy waaj da nga naan jiw te ñu ngi dégg ñu naan deer deer boo duggee ci àll bi ñu ñun dañu yore ay xale yoo xam ne yaakaaruñ leen lu dul mbéy mi bu ñu nee DER nag ku ci ne ñu financé la ci sa domaine de compétence ki nga xam ne béykat la amaan na sax am na ñoo xam ne xamuñ fu ñuy jaar pour jot ci loolu waaye dañuy ñaan lépp lu ñu mën a def nañu fexe ba xale yooyu ñu fixé leen ci àll bi nañ leen jox jiw jox leen matériel agricole jox leen ko à temps parce que prix bi baax na léegi ku ci am jiw am matériel agricole da nga toog ci àll bi béy loolu daal ñu ngi leen koy ñaan di ñaan aussi état mu jàppale ñu ay ay semoir maanaam xam nga uusa suñu artisan locaux yi mën nañ ko defar waaye semoir mënuñ ko defar da nga dem ci dëkk njëriñ du ñu bëri ku léewul doo am kooku ñu ngi koy ñaan ñu jaar ci organisation paysanne yi boo mën a jox béykat yi cultivateurs yi ñu mën leen jox ay machine at mu nekk nag bu ñu séddale jiw yi coow leen na coow boy ci dëkk yi ndax yenn opérateurs yi la ñuy wax ne la ñuy yóbbu ci jiw du doon gerte gu baax tout-venant lay doon am na sax at moo xam ne lu ëpp fanweeri opérateur joxoon na leen agrément nanguwaat ko ndax dañoo jalgati béykat yi ñu ne lu ñuy mel moom danañ ci wagar àpp nañu ko fu ne jiw baax rek ñun jiw bu baax jiw bu mot parce que ren jël nañ décision ne duñu bàyyi kenn kenn nag muy toroxal béykat yi nañu ko defoon ca njënd ba noonu lañ koy defe topp béykat yi képp ku ñu pësel lu motut danga ko deloo ku ñu bugg a jox lu baaxul doo ko jël loolu moom fas yéene nañ taxaw ci loolu ci fàttali nag campagne ñu njënd ak njaayam gerte mais ñi tëj bërki démb ba mu tàmbale coow li bëri na lool diggante borom usine yi béykat yi ak gan yi te gën na caa fës chinois yi sant la gërëm la Cheikh Ababacar Dieng ba tey ci wàllu di joxe jiw gi fësal na itam la ñuy xaar ci Sonacos lu jëm nag ci Sénégal moom boppam ci wàllug euh, ceeb sàkku na ngir ñuy jaarale jiw bi ci organisation ya ñu euh, dénk lépp lu jëm ci wàllug mbay mi di organisation paysanne Ibrahima Badiane ma ngay tontu laaju Cheikh Ababacar Dieng dañu ne autosuffisance en riz riz bi mu ngi ñëw de ceeb bi mu ngi ñëw waaye béyuñu ko boo ñëwee teg ko ci communauté rurale ñu daje fa bañ ko jox nit ñi ba distribution passé ñu bojj ko dem lekk ñuy ñaan ko jaaral ci organisation paysanne man demi hectare laa béyoon am naa ren presque trois tonnes kon nañ ko ci jaar Dakar nit ñi inspiré nañ ci ba ñu bëri nee nañ dañoo bëgg a béy jiw kon nañu inspiré ci loolu indi ko ci organisation paysanne ñu jox leen ko ñu dem béy ñu am autosuffisance en riz. at mu ne ñu ne ñu tant de tonnes mooy commencé producteurs yi di wane xam ne mënu sàmba xali saalum waaw man de li wax xam nga ña koy joxe mooy ca kaw li ko dalee ci président ministre ba ci kaw ñoom ci kayit lu baax la ñuy joxe kak engagé wu nag ne lu baax la am indi ko yow béykat bi nag yow yaa war a am fula bu toll ni indi na ko te lu baax lan lay jox bu la joxee lu bon nga bañ ko jël waaye xam nga li bon mooy jël bopp pare di kaas bu dee dafa bon bu ko jël loolu la rek. Sonacos nag loo lu ma ciy xaar mooy seen directeur bi wax rek ñun ñu suñu problème du loolu xam nga ñun kii wax ñu kii jëf moo ñu ko gënal dëgg naa mu ne moom dañuy dem béy ci àll bi toolu kan la ñuy jël ñoom xalaatuñ ñoom mbéy du seen ron xam nga seen ron lan la mooy jënd li ñu béy waaye bu demee nag booy bind ay maire pour ñaan ay suuf suuf si na ko wóor ne fu mu ci dem béykat yi dina opposé du fa am suuf kon na xool beneen kii dañu ne woon nañ dem boor champ ma ne bala ngay dem boor da ngay dem avant champ mooy booba béykat bi amul jiw amul dara ñëw jox ko jiw jox ko engrais assister ko mu béy bu béyee ba pare doo dem bor biir maison ngay dem kon nañu dimbale béykat yi contractualisation bi ñu indi ko même chinois yi nga gis ni mooy étranger yi nañu jàppale béykat yi parce que mën nañ leen jàppale duñ toog rek ba mu ñor ñu ñëw di forcer ay prix nañ joxe jiw nañ contractualiser ak producteurs yi opérateurs yi ñu ngi koy def nako Sonacos def waaw mu ngi koy def COPEOL wala nga koy def kon damay ñaani ay tool mbaa topp leen njëgu neex ki bay jaay gerte gi yëpp ma ne jaay nañ ci lu sakkan de ndax ñoom ñooñu di wax ne na ngeen denc yëpp ku ci ne da liggéey weer te bu weer dee li ngay am ñun bu ñu nawetee bu nawet génn duñu am lu toll noonu te mënoo denc dara kon li ñu mën a denc denc nañ ñi mënul denc dencuñu dañuy bàyyi baykat dem seeti euh, technicien kuréel ga leen tàkkee nag euh, ñoom indi nañu ay leeral ak i tontu ci seen grève boobee ñu sumb ñeel seen ay payoor yu euh, dox seen digg ak ba leen njaboote lu jëm nag ci bilangu mooy di ndam lu ñu war a bàkkoo Samba Gaye moom itam a ngay tontu laaju Cheikh Ababacar Dieng bi ñuy commencé indépendance la ñu amoon ci production ba léegi moom la ñu am loolu du ndam parce booba li fi nekk ci ay ndaw yoo xam ne yi war a mën a liggéey la tool yi amoon booba nga xam ne kenn bàyyu leen àll boo xam ne yi nen leen la kenn toppatawul leen fi mu toll nii àll bi fi am ndaw yi fi am xam-xam bi fi am ñu war koo mobiliser yëpp def ko ci mbay mi war a mën a produire loo xam ne lii nii mën na ñetti yoon la ñeenti yoon liñ def ñu indi lii na mooy bilan bi ay la ween baax na kenn du ko wax ne baaxul ndax bu fekkee ne yaa ngi doon xaar peut-être moyen nga am plus kon wax ne baax wante nag du ndam loo xam ne nii nii ndam loo réy la lu ñuy bàkkoo du ndamu ministre bi du ndamu techniciens yi parce que techniciens yi li ñu doon xaar war nañoo mën a def fukkam ci lii depuis ñaari at ëpp na ko sax ndaxte depuis indépendance ba léegi lañ doon fayee ko ca Mamadou Dia ca Senghor ba léegi foofu la payoor yi nekk bâtiment yi nga xam ne yi moom la fa Mamadou Dia defoon foofu la ñuy loolu ñun ñëpp mën nañ ko seede fii ci service régional mai ñi jébal ko kayit yi ak léegi am na ñetti weer te loolu moom ak ay directeur national am ay conseiller technique am ñoo toogoon ñu d'accord ci ne lii la ñu jox ko ministère finance ak ministère fonction publique moom mu engagé woon na dana ko topp waaye keroog àjjuma bi passé ba mu ñu ooyee ministère ay léegi la mu doon wax yëpp dara loo xam ne lii gis nañ ko ci lu am gisaguñ ko léegi nag moo tax ñun ñu ngi ci grève kon campagne agricole bii ñu commencé ren jii commencé na takk suuf ndaxte li nga xam ne mooy jiwu wi ñu war koo séddale ci gox goxaat yi ñu ngi jël ay opérateur di leen jox ne yéen am na nañu notification pour war a mën a joxe jiw ñu wax ne Sénégal du réew moo xam ne bii ni moom dong mooy defar jiw ci réew CEDEAO lañ nekk réew yooyu dañoo xaatim benn kii ne kuy jox jiwu askan wi da nga war a am bulletin d'analyse de demande certifié bulletin d'analyse yooyu ndaw yi ñu ngi nekk ci grève ëpp na ñeenti weer wala juróom weer ñu ngi ko téye kon directeur de l'agriculture jotul bulletin yi te loolu moo war a mën a génne kon ku nekk mu tàll na yow la nga denc semence yi certifié nañ ko war nga mën a jox baykat kon loolu mu ngi ubbil bunt boo xam ne buntu mbuxum la buntu naxasaayu mbay mi la buntu faagaagal li nga xam ne nii moom la mbéykat yi yaakaaroon. kuréel ga takkee producteur u semence yi ne grève boobee technicien yi di amal yàqalu leen dara seen ak liggéey ndax yëguñu ko li ko waral nag bokk na ci lu ëpp ci ñoom bokkuñu ci boobule euh, grève ànd ak de euh, xam ne ne am na xel mu dal ci jiw bi atum ren ji waaye itam ci njëg yi ci usines yi moom Saliou njaay ma ngay tontu moom itam laaju Cheikh Ababacar Dieng. waaw noppi nañu ndax euh, teel nañ ñu koo yëgal c'est koy nit ñi dajale nañ jiw wi war ñu koo indil te ñun itam commission yi déjà xam nga commission boo xam ne at mu mu am jaaxal nit ñi dañuy dajewaat rek daal di beesalaat ak sous préfet bi daal toog xaar bu ñëwee nag ñu jël mais nag duñ jël ne de jiwu lañ wax ñaari façon jiwu am jiwu moom la ñuy wax écrémé mooy jiwu bi dàq gën ci jiwu ordinaire moom la ñuy woowee écrémé kon nag ñaar yooyu dinañ ci xar suñ tànk tubéy buqi suñuy bët ba bu yegsee dinañ xam li ñuy jot lan la naka ngeen a xamee xayma gi bu ñu xamee ne technicien yi ko war a def ñu ngi ci xeex seen digg ak euh, nguur gi waaw ñu ngi koy wax mais du technicien yëpp grève moom toujours day am ñoo allocation yaa ngi ñu ngi koy joxe planning bi de distribution bi génn na donc boo demoon ministère dinañ la won ay kayit yoo xam doone sax lii yëpp yónnee nañ ko au niveau du ministère pour ñu mën a joxe loolu kon nag moom xëy na ñi bokk ak moom kuréel dañoo gareew mais am na ñoo xam ne gareewuñ te te liggéey boobu moom lañ yónnee Dakar ci la Dakar sukkandiku pour yónnee ñu ko loolu moom amuñ ci ñaari xel suñu xel daal na de dina baax ndax su ba nañ ci lu ñuy tiit campagne bi ñu génnee gën mi njëg fa neexoon lool ñu doon jaay gerte yi rek doortuwu ne gerte gu baax gi dem na Chine gerte gu baax gi dem na Chine wax ko wax ju ëpp la xam naa am na lu ca dem mais lépp demut ngeen nuy moom neexoon na lool sax lool lool wante nag li ma ci xaw a jooytu rek mooy wax naa ko suma baykat yi ma nekkal nee naa leen man mënumaa d'accord ñu privilégier expertise étrangère bi à l'expertise locale parce que loo xam ne tam réew mee ko na ren ji nañ ci xar di dem ci usine yi su ko defee ñett yi dana dem ci exploitation ah, day fekk njëg baax usine moom fi mu nii far force la njëg li di baax fi mu nii nangu daw nangu daw ñu diri la fi mu nii gerte moom ko bëggu di nga génnee xaalis soo génnu xaalis doo ko am gannaaw producteurs yi ak yi dañuy seeti opérateur économique yi gën jàfas na di bu gumbala ci te mouvement taxawu Kaolack moom nag sàkku na ci nguur gi ngeen mu subventionné béykat yi jaaxee ko rek ci jiw ak engrais fësal na itam yeneen i mbëbët yamuy xaar ci euh, campagne yu sëdaleem jiw gi moom Cheikh Tidiane Diagne. li ñu ciy xaar lu bari la parce que boo xoolee campagne bi ñu génn nii campagne de commercialisation bi ku ne xam ne ndox mi bari woon te nawet bi demee demeewul noonu te vraiment jóge nañ depuis daaw ba léegi ñu ngi ci ay jafe-jafe yoo xam ne jafe-jafe yu yu tar la en tant que opérateur nu ñu dalee jafe-jafe yi noonu la laalee couche yëpp à plus forte raison ñi nga xam ne si ne yaakaaruñ ñu dul ci mbay nga xam ne affaire bi yemul Sénégal rek c'est dans le monde entier mu ñu amoon nag baykat yooyu wala producteurs amoon seen i mbokk wala seen i rakk wala seen i ñu leen jege yoo xam ne si ne dañ nekkoon à l'étranger daan leen dimbali ci wàllu jiw ci wàllu intrant ci wàllu kër gi sax ñooñu noonu mun naa wax ne tey lu ñu lekk sax daf leen def problème ci réew yi ñàkk kon donc ñooñu bala ngaa naam nekk tey ñooñu seen bopp lañ tal fi nekk ne kon donc ndimbal lañ doon def ci wàllu jiw ci seen mbokk baykat yooyu ndimbal lañ doon def ci wàllu intrant ci seen mbokk baykat yooyu ndimbal lañ doon def ci wàllu lekk ci mbokk baykat yooyu mënatuñ ko kon donc ñu ngi jëm ci nawet état dépense subventionnée subvention boobu doon def na ñun de vraiment dañ ci lancer appel waxoon nañ ko ci bi pandémie bi amee bi mu ñëwee daaw avant ñuy joxe jiw yi ne état liñ koy demandé mooy que mu subventionné béykat yi à cent pour cent parce que béykat yi yoratuñ dara fi mu ñi nekk ci taa nekkoon ay chef d' seen am-am mooy wàññeeku am na xam ne si ne ay entreprise yoo xam ne sax loolu ku ne xam na ko kon donc dañuy ñaax état vraiment mu subventionné béykat yi à cent pour cent ci wàllu jiw mu subventionné béykat yi à cent pour cent ci wàllu intrant yàgg kañ leen war a jot fi mu ne engrais beeg semence. waaw fi mu ne notification certifiée yi génn na ba planning yi génn na normalement léegi ñu commencé séddale d'habitude nag le vingt cinq mai la daan dem. yéen a ngi déglu xibaar yi ci Alfayda FM 90 gëstu bés bi agsi nañ ci moom la ñuy waxtaanee junjoon nañ leen ko lañ cay waxtaanee nag bokk na ci jafe-jafe askan bi di jànkonteel ci téléphone yéen ñuy jëfandikoo jëm rek euh, ci xaw yi seen ay sutura ci la ñu duppee vidéo intime gën di soxna yi rawatina xale yi jigéen ñi donte nag ña nga cay àtte ay nit ci tribunaux yi waaye terewul tey jii la waalo gën a ay ngir waxtaanee ka nag soxna Ndeye Fatou Cissé seeti na informaticien bi di Khadim Rassoul Diop jiite itam doon it directeur 3i ñu teewlu leen. vraiment boo xoolee léegi mbirum whatsapp téléphone portable yi tablette yi ordinateur yi internet bi daanaka lëbbee na àdduna bi surtout nag fii nag euh, ci wàllum Afrique Sénégal moo ci raw. yedd yërëma ko gën waxi wolof la internet ak xarala yu yees yekk nañu koy jëfandikoo rawatina yi ñu dippee ay réseaux sociaux di wéy di jur ay loraange ci biir askan wi ak i njeexital yu doy waar ci ëllëgu ñi nga xam ni dañoo toog ba yëg ne rek ci lu ñu mësul xalaat ni seeni vidéo intime mi ngi circulé ci dëkk bi nag jaaree fa xawee ci ñoom seeni moroomu nit ñoo leen koy def néew na ba ñàkk lu xameel mbaa sax ak mbokk di dox ci seen diggante ke ñi leen di def jëf joojee ba ñu ko laajee nag gis-gisam ci mbir bu ni mel Xaadim Rasul Diop di informaticien waaye tamit directeur groupe 3i lam ñu xamal mooy ne la mu ca gis weesuwul ak ñàkk yar gu fës lool la ci ni ñuy jëfandikoo internet ci ay réewu Afrique yu si mel ne sunu bos leen éduqué wul ci internet naka lañ ko war a utiliser tey boo xoolee internet bi li muy yàq moo ëpp lu muy defar tey da ngay jékki-jékki ka dégg wala nga gis ci WhatsApp bi ñu envoyé ay vidéo wala ay document jàmbur yoo xamante ne boo ko xoolee yow sax da ngay am kersa da ngay rus te loolu vraiment lu doy waar la. sensibilisation maanaam gën a yee nit ñi waaye tamit xamal leen li yoon fas yi naa jëflante ci ñi jël egg sax ba ci siiwal vidéo intime jàmbur mbaa leneen lu koy nuróol directeur groupe 3 ne tey lu mënul ñàkk la leneen lu mu wax mooy ni nit ñi dañoo war a xam ni téléphone euh, du denceekaay yu loo xam ni bëggumu mu siiw. Euh. il faut que ñuy sensibiliser nit ñi vraiment euh, ci utilisation bi ak aussi loi yi nga xamante ne yoon du def ko fi tëral sur la protection des données personnelles amoo droit utiliser sax image jàmbur à d'autres fins waxtuma la ngay jël ay vidéo intime donc jàmbur di ko jël di ko diffuser parce que loolu non seulement am na sanction pénale mais aussi donc lu bëri bëri na ci fekk ordinateur yi téléphone du dëncukaayu loo xamante ne tey bu fësee sa àdduna yàqu moo xam naa sa document lay doon moo xam naa ay photo intime wala ay vidéo donc il faut aussi nit ñi aussi war a fàttaliku war a bàyyi xel ne téléphone du ne donc sa àdduna mën ci denc image la tey téléphone boobu tey mën nañ ko for téléphone boobu tey mën sa noon mën na ko si par exemple la moo tax aussi ñu ciy bàyyi xel bu baax a baax a a baax a baax menace chantage egg sax ba ci kon di siiwal ay vidéo intime jàmbur ak euh, njeexital yu métti li li ni mel mën a jural ñi nga xam ne ñu koy dund tey di loo xam ne nag day wéy di fës ci biir askan wi ci jamono joo xam ne mënee su ñàkk laaj ndax yoon moom ma ci fànn gu ni mel ma ngay jibal ay daan jëmale ci ñi nga xam ne ñooy def loolee waaye ay daan yoo xam ne dana méngoo ak li ñu def ci uññi sutura jàmbur ak conséquences yu métti ya mu mën a jur waaye tamit ndax askan wi moom ma ngay defal li mu war a def ngir fàggan ko situation situation yu rawatina ci tout tànk yi. yéen a ngi déglu xibaar yi ci Alfayda ñu ñëw ci ñeenteelu pàcc bu ñu jagleel lépp lu soxal koor gi ñu dalal ko moom oustaz Mohamed Sow ci waxtaanu koor gi laaj bi samp nag tey jii mooy lan mooy farata ak lu dul farata waaye itam santaane ak digle borom bi lan moo ci war jaam bi oustaz. santaane borom bi subhaanahu wa taala moom def ci sa kéem kàttan mooy li war waaye tere borom bi azza wa jall bàyyi dong mu la sant bàyyi dong amul li ma man maa li ma mënul lépp lu yàlla tere jaam yépp mën nañ ko bàyyi te bàyyi xel bu baax bañ a sàggane farata te nekk ci yeneen yoo xam ne xëj na egguñ ci farata loolu moo tax Muhammadul Muxtaar Shitqiiti rahimahullah mu wax wax ji am solo jooju nee na ñaq boo xam ne jaam bi mu ngi koy ñaq suy dem jàkk pour julli tisbaar nee na moo gën a màgg xam na jaam baa ngi koy tuur ci jullik naafila ci weeru koor nee na ndaxte ndox bu njëkk ba bu bàyyi ko ci ñàq ba ab farata la waaye ndoxub ñaareel ba mu bàyyi ko ci jooye ci naafila boobu ak naafila la te kenn du comparé naafila ak farata nee na bokk na ci naxu ak waru bokk na ci naxu mooy doomu aadama bi nga xam ne dafay nelaw ci julli tisbaar ak tàkkusaan muy nelaw ci weeru koor te mu yittewoo jullik naafila tàmbalee màbba bañ yextal ga ndaxte kat nee na loolu ak aada ak manifestation bu fees moo ko farataal nit ñi loolu nag na jaam bi xam ne julli tisbaar a tàkkusaan farata la moo gën naafila weeru koor ku waru nag mooy ki nga xam dafa sàgganee farata yi yittewoo yoo xam ne naafila yi farata yi mooy jiitu kon farata mooy li nga xam ne jaam bi su ko defee jaamoo ko borom bi subhaanahu wa taala mu am ci tiyaabu su ko bàyyee am ci bàkkaar ak merum borom bi subhaanahu wa taala mi ngi noonu oustaz Mohamed Sow dañuy ànd ak Bara Diop ci kooru gay moolum géej kooru gay moolum géej o Haaj Ibrahim Gay démb dialogue ba yàqoon kooram cocktail ba moo yóbbu xel ma Haaj Ibrahim jëf jëf ba noppi daldi rëccu mu wéet xalaat rekk rankoñ yi dal dënn bi <laughs> yàlla yàlla musul ci seytaane lii ma dem léegi lu may jëriñ dagg sama koor ngir lekk rek sama kër sax xale yi tuuti ñëppay woor waaye man seytaane <laughs> <laughs> o oh, xaaj Ibrahim Gaye naka muy jooyee boole kooku waxtu Waly Maja Seck dikkee ko gannaaw ah directeur ba jàmm ko faatu DG xool ko moom waxu dof yi muy wax mag mu toog xalaat suñu borom xolam tooy mu jooy nga daan ku dee xanaa yow la Waly dee directeur damay laaj rek man xam nga taalib bi dëgg laa li may ragal loolu bokk ci waa sax naka sa koor ki DG métti Waly Maja méttit gi amul solo sunu borom lu mu teg doomu aadama bi fekk ne attan na ko lum ñu sant rek suñu njëriñ la ñun doomu aadama waaye amuñu gis-gis DG mais waa de non non non yaa ma yëngal damay wax ñun doomu aadama yi ñoo war a xam suñu bopp buñ la warloo ngay tappale def ala gàlle ba noppi léeg-léeg ngay tànqal nit ñi wéet di jooy doomu aadama dafa mën a nax suñu borom yow mal xayaama dana metti de o amoon na kàddu sax waaye waali warante la ko seqal te moo nga ci koor gi tey jile mu dal di bës frein dal di wàññee température am waale wax trois heures de temps DG na teg mel na ndongo luy jël dar o xaaj Ibrahim Gaye wax ji lu muy bëri bëri dégg na dégg mu yëngal bopp rek xam ne moom mile moo nekkoon ci ay erreur waali monte nekk ci liggéey bi DG dëju fa mu dëju di jooy rek ni mu tëddee nelaw na daa toog rek téléphone na kar Haj Ibrahim ji ko si poos bi décroché allo <laughs> directeur man la ba dafaal bitim réew bokk ci fan fans club bi <laughs> waaw voilà commencé fan naa par bët sax waa fans club bi ñoom Chérif ñoo nekk ci buntu rajo bi suukar koor lañ la doon andil mais dafa mel na sa visite bi daf leen tere dugg ne solo ñu masque DG bët yi xippi na ah nga ne Fall dafay foto may yow tuuti o Haaj Ibrahim Gueye rak tak mu wàcc ci suuf fekk gaañee ñoo ngi yore sukkaru koor gu duun ñoom Chérif Diallo jonn ndaanaan ànd ak jee jaw njool soose magal leen DG séen leen waaye faala ko yitteel yow Fall lan la da nga ma soxore wala teraanga gu nar a ñëw ci man ngay jéem gàllankoor ñi xamee wala ci rajo bi ah directeur man yaa ma waxoon ko ko takkul masque bu mu dugg de te ñii kenn indiwul masque xaw lu ñu yor nag te Chérif Diallo mi testé naa ko mat na 39 degré affaire bi dafa dama tiit sax moo tax ma isolé ko fële DG mi ngi may indil teraanga kay bàyyil ma dugg dafa corona corona lu si yor lii mu yor moo ma la gënal <laughs> soose directeur bu jooy boo jooyee sunu yaram day daw o Haaj Ibrahim Gaye mu bënn bët <laughs> <laughs> Njool Soose di xalam di wéy rek Haaj Ibrahim nax nanu ko ba fompal ko ay rankoñam jox ko ay suukar ak ay tàndarma yu bëri Haaj Ibrahim jërë ngeen jëf yéen fans club bi waaw góor daa baax ci liggéey <laughs> ni ngeen ñuy poussé kontaan nañu ci DG oo na ñu yéegalal ko bagage yi waaye tàndarma bi moo taamu yéegalal ko boppam dugg ak moom biir biroom tooy gam tooy tax mu téye ko di ko nabb nabbee xelam sori bi mu mar lox yi tey fayu gi yegg ci ndong li o xaaj ibrahim mu sërëxal benn dene de yàq keer xam naa <laughs> mu jeex mu sërëxalati laata fanweeri simili liibaru tàndarma lem na ko ci biir bi xabaar yi bitim réew xabaaru bitim réew Cheikh Tidiane Sarr yaayoo roppalaan benn ci ban réew leen koy doree ci réew mi di Tchad lañ koy dooree wax ci charte bu bees bi nga xam ne nag teg nañ ko soxal transition bi maanaam négandiku bi soxal wàllum réew ma soxna Ndeye Khary jàppal ne daal réew mi ñuy wax Tchad gannaaw bi nga xam ne seen njëttal réew di président Idriss bi génn na àdduna te ñu teg ca bopp réew ma doomam bi ñuy wax Mahamat Idriss Déby jamono ji li nga xam ne moo fa bees daal moo di charte bu bees bi nga xam ne teg nañ ko muy soxal nag nees mën a def daal ba doxal réew ma ci période bi nga xam ne moom lañ ko xaymaal muy 18 mois jàppal ne daal ci dogal yu bees yooyu bokk conseil militaire boo xam ne war nañ ko teg muy conseil militaire de transition conseil national de transition ak gouvernement boo xam ne nee nañ de transition la conseil militaire boobu nag ñi ko war a composé daal moo di généraux yi seen lim toll ci fukk ak ñeent ñu fàttali ne président conseil militaire de transition bi moom daanaka mooy njiitalu réew ma ndax moom moo am dogal tànn ak fal képp koo xam ne membre nga ca gouvernement ba mu nekk daal beneen taxawaay boo xam ne nag réew mi wax càdd ko donte sax jamono ji daal nit ñaa ngay am xel réew ma ak jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy ragalaat mu amaat fa depuis bi nga xam ne faat nañ ko moom njëtal réew bu Tchad ñu koy wax Idriss Déby. xabaar yi bitim ci Côte d'Ivoire wax ci ay nit yoo xam ne dañoo yoroon ay ngàndaay song daal benn base militaire benn dalluwaay militaire nekk ca bët gànnaaru Abidjan soxna Ndeye Khady jàppal ne daal base militaire boobu nga xam ne moom moo nekk foofu la ca nord moom daal dañ ko song daal ñu ko def nag jamono ji kenn xamagu leen waaye lu mel ba amee daal amoon na ay tirante fet gàttal daal ba ñetti nit ñàkk sa seen bakkan am ñoo xam ne sax dañ cee gaañu bu ñu sukkandikoo ci état major bi nga xam ne moo fësal xibaar bu nu mel. xabaar yi bitim réew. ñu jubali ca Russie wax ci dogal bu bees bi nga xam ne waa Russie jël nañ ko jaarale ko ci seen teewaayu militaire yooyu nekkoon ca réew mi ñu wax Ukraine Russie daal jaarale ko ci ministre bi ñu dénk wàllum kaaraange ga mu ngi yëgle ne danañ fa jëlee seen militaire yooyu nekkoon foofu la ca réew mi ñu wax Ukraine ak Crimée gannaaw bi nga xam def yëpp daal euh, ci kaaraange def nañ ko fa ci waxtu boobu tamit ñu gis ne foofu la ca Russie ay nit ñu bëree bëri ñoo génnoon ca mbedd ya dan wane seen naxar wala sax seen jàppale ci opposant bu ràññeeku bi ñuy wax Alexei Navalny gannaaw bi nga xam ne sax dañ ko tëj ca kaso ya waaye tamit jamono ji mu nekk ci ab euh, grève xiifal bu métti soxna Ndeye Khady daal moom Alexei Navalny nekk ci jàmmaarloo bu tara a tar ak euh, njiitalu réew bu Russie di Vladimir Poutine ci waxtu boobu sax moo tax daal yooyu ak jafe-jafe yooyu nga xam ne moom mu ngi koy dund moom Alexei Navalny ni waa France àddu ci jaarale ko ci seen ministre bi ñu dénk wàllum bitim réew ñu koy wax Jean-Yves Le Drian moom mu ngi yëgle ne daal lii nga xam ne moom lañ koy teg moom Alexei Navalny daal benn acharnement la maanaam loo xam ne teguñ ko ci yoon waa Russie di ko def jamono ji ba tax daal muy artu waa Russie ne buñ moytuwul danañ leen sanctionné maanaam teg leen ay daan bis bi nga xam ne moom Alexei Navalny mi di opposant bu ràññoo ku nekk ca Russie génn àdduna ca prison ya. xabaar axbaaru xabaaru tàggat yaram Serigne Moussa Kane maa ngi lay nuyoo. Ndeye Khady maa ngi lay fay te nuyu mbokk auditeurs yi di leen ziar ci ajuma ji tàggat yaram yi dañu koy dooree ci ak eh, Istanbul Basaksehir nag club turki bi nag daal dinañu xamal ni moom nag am na ak déggoo bu dox ci digganteem ak doomu Sénégal bii di Demba Ba fanweeri at ak juróom ngir dakkal contrat bi nga xamante ni des na ñetti weer ngir mu jeex ñu waxtaanee wàllum football la dem ca Allemagne nag beneen club boo xamante ni benn doomu senegal ma nga fa di Salif Sané nekk ci club bi di Schalke 04 Stuttgart ginnaaw bi nga xamante wàcc na leen nag ci Bundesliga de supporters yi nag dina jot a agressé ay footballkat yu bëri ci biir club ba ba tax na nag club ba nag nee daal loolu du ko bàyyi mu sedde noonu coupe CAF la ñuy waxtaanee bi nga xamante ni def nañ jaloore nag ci kanamu étoile bu Sahel jaraaf bu Dakar nag daal dinay am ci gafakaam lu toll ci cent soixante-dix-sept millions ci suñuy koppar dolli ci li nga xamante ni mooy cent quarante yi nga xamante ni phase de groupe bi comité exécutif bu fédération sénégalaise bu football daal dina jël ab ndogal daqaat saison gi ñu ñëw li nga xam te coupe du Sénégal yi ñu jagleeloon jigéen ñi ak ndaw ñi bu ñu daal ci DTN bi nag nee daal nañ bàyyi xel bu baax a baax ci attelage bi nga xamante am na ci équipe nationale yi ginnaaw bi nga xamante saytu nañ ko ci comité exécutif bu fédération sénégalaise bu football ñu waxtaane wàllum football ca juróom-ñaari waxtu jotee faneeru bëccëg beek ñett Prime League ca Angleterre Arsenal di daal ak Everton démb nag lu soxal wàllu faneeru bëccëg beek ñaar ca Prime League Leicester dafa lapp-lapp yi metti waa West Bromwich benn Bundesliga ca Allemagne Augsburg ak Cologne FC bu juróom-benn ba teg faneeri simili lay doon faneeru bëccëg bu Kalidou Koulibaly dafa lapp-lapp yi metti waa Lazio bu Rome juróomi bal ci ñaar Rome ak Atalanta Bergame ku nekk benn bal dugal sa morooma faneeru bëccëg bekk benn liga espagnol Atlético Madrid dafa am ndam ci kanamu USK ñaari bal ci dara Grenade am ndam ci kanamu Eibar ñeenti bal ci benn Real Sociedad am ndam ci kanamu Celta Vigo ñaari bal ci benn FC Barcelone daal di am ndam ci kanamu Getafe Maroc nday xat yi gannaaw bu ñu leen ñaanalee kendaa yu jàmm lii ma gënoon a fa ci xibaaru tàggat jarami juma mubarak li ci yéene kaay yi kaay yi L'Obs, Le Soleil, Sud Quotidien, Walf. bànneexu leen ci 4G plus fépp ci Sénégal ak seen puce mbégte bu promobile daa ngeen ci fekk junni crédit ak 750 mots yoo mën a jëfandikoo ci diirub weer lépp ci puce bu jar ñaari téeméeri dërëm dong daw leen gaaw ci sunu ñaar fukki agence ak juróoma yi leen gën a jege wala ci sunu boutique partenaire yi leen gën a jege fii ci Kaolack sunu agence de Cheikh Al Islam El Hadji Ibrahima Niass résidence Mame Diarra Jano accès 3S téléphone 75 525 0051 75 525 0036 ngir yeneen leeral def sa dièse 175 dièse wala ngeen woo sunu service client ci 16 75 Promobile romb na puce Promobile moo leen di may. li ci yéenekaay yi. li ci yéenekaay yi El Hadji Seydina Omar lañ ci àndal. Euh, salaamaaleykum yéen ndaw Sénégal yi duma leen masa seetaan faa leen di jàppale ba ngeen am liggéey lii bokk na ci kàddu yi njiit réew mi Macky sàll wax ni ki démb ca ndaje mañ doon xamal ca jam ñaajo jagleel ko xëyu ndaw ñi la Soleil yéene kaay yeggee ñu ko exclusif yéene kaay ni Macky fa dalal xelu ndaw ñi ngir li ni mel nag mën a yomb faay tàllal loxo secteur privé bi faa bëgg daal ngeen xam ne man maa ngi seen wet mboolam jafe-jafe bu ngeen nekk ak lu métti métti faa ngir wut ci ay saafara critique yéen a kaay ne Macky kay fa signé chèque bu mag ci xaalis turbine yéen a kaay na ko gannaaw bu mu ko siñe fa koo yëkkati nag ba ndaw ña gis ko waaye nee na fa fas yéen rëq ndigg bu fekkee lim santaane xam na ñoo xam ne defuñ ko wala ñu yëg ko def yow seetal nee na du ma mayee dara xamul perte temps fa bëgg ñu accélérer ko mu gaaw te joxeem xëy mi bu mu am par parloo de lii yéen a kaay ne Macky nag juróom-ñeen fukki junne ak benn ci ay dige moom la def démb ba pare nag yokku ca di tëkku jigéen ñi nag ñoom bokkuñ l'observateur na Macky nam doon waxee fa mel ni rocc na yat wa de yaw seetal les écoles yéen a kaay na ko fi ndaw Sénégal yi fukki diiwaan yi ak ñeent mbooleem jafe-jafe yu ndaw yi am ci réew mi la ñuy jooytu fañ koo juri bécc ko ca kanam Macky lépp lañ ko wax le quotidien yéen a kaay na Macky walide na maanaam nangu na pexeem daar daar bi mu duppee xëyu ndaw ñi te mooy yéen a kaay na ko Macky kay fa xàll yoonu yokkute ci wàllu xëy yaw seet tal laas yéen a kaay ne Macky kay démb pexe yam nas juróom-ñeenti poñ nag mooy la ca gën a am solo ca ndaje ma bokk na ca juróom benn fukki junne ak juróom ci xëyu ndaw ñi danañ leen jël weer wii ak yeneen source a yéen a kaay ne xëy faa leen di wax dëgg gis ngeen démb ndaje mee Macky xam nga lu mu fa nekkee danañ génne ay milliards ak di wax wax ju neex ndaw ña lii da la fa Macky nekkee jàppal bokk na ca baat yam leen doon wax nen leen man ak ñi ma àndal état bi duñ leen mas a ak lu mën a xew xam naa li leen naqar yi xam naa seen jafe waaye bu leen dara métti danaa ko saafara ndax man comme yéen yéen a kaay bi ne mel ni daal Macky fa doon nax ndaw ña gëmut sax li mu doon wax ayaw ah, seetal si jamono ji muy wax loolu ndaw ñi di leen raayaka neexal toj seen bopp bi naan yuur gi fële na bëgg a tëgg mboot ndax moom Macky këru liggéeyukaay yu bëri Sénégal ay société ay agence au lieu mu jël ndaw ñi am xam-xam xarañ mën koo yor déedéet ay paa yu màgget ak ay maire yu kotootoot ñii àllaa traité nañ te ba léegi mu ngi leen fa bàyyi jàpp leen benn Ageroute RTS Aprosi Petrosen Holding Sodifitex IPRES ak yeneen yu du xaaj du jeex lu tax jëlu ndaw ñi a daal yaay champion tribune yéen a kaay na ko buggaan géy dani moom tey lay dajee ak ndaw ñi direct news jox kàddu ki xam-xam màcc ci wàllu koom-koom Ibrahima Sall lam jàpp mooy gis nga politique ndaw ñii taxawaalu gi nekkee lu ko fi jëlee nekkut ay dajaloo rek di tuddi milliards mais ni ñuy gént déedéet secteur informel bi foofu moo mën a joxe xëy xaali xuja jaw xam-xam màcc ci dundinu doomu aadama ci tribune yéen a kaay na makki kay neexut ba neexul waaye defatina erreur de Mimi Touré moom it ma ngay joxe xalaatam ci a àndee génnee aw xet wax su populi na ko karoot ba xam nga fa neex ndaw ña la ko jox maanaam di leen wax lu ñu bëgg a dégg rek lu leen neex rek waaye xet wa nag xam nga ku mu ko génneel Ousmane Sonko yéet démb tuuti ko doon makki ray ko fa koo dugg ba taxaw ca bopp ba ah, yow seeta nee na ko waa bitim réew di la may doole di la jàppale warta tax nga bëgg def ci réew mi maa tey lu la neex def waaye faa la bëgg xamal na gis nga réew mii kenn mënut koo yàq te képp ku njortu ne état bi fa faible maanaam yànq yoxam néew doole képp ku njortu loolu yaa li fi xamoon nag réew mu yëngu fitna jóg dootul fi xamaat de ah, baax na te su fekkonte ne Sénégal du réewu démocratie konoon li fi dee ñu ngi wax fukki nit ak nàngam konoon dana ko ëpp ba tax enquête kaay na makki nag démb mer na de ci les échos yéen a kaay nee na su fekkee fa ngaa gëm ne démocratie xam na waaye tamit loo gis na fu mu war a yem waaye far force fara force doole mbaam lu ma neex def te man makki musumaa xalaat ne ci réew mu normal nit dana dem di song dalwaayu ay sandarme ay kër mais loolu intaha c'est fini jeex na de kaay de fa leen a wax ne hëy gis ngeen université yi barabu xam-xam la waru leen nekk mel ay rayante kat campus nag faa ko nar a régler wal fajiri na ko makki xam na la loo war a de sa parti bële APR ndakaaru rayante responsable yi mambay ñang dugg na attaqué Diouf Sarr exclusif yéen a kaay na ko am na la lu makki war a ci partem bi jàngalekatu APR ya fañ doon amal AG yëf ya mujj yàqu ñu nekk fa ñoom responsable ya dikk taay saaga ndey yu ñaaw loolu rafetu ci ay jàngalekat la lu rafetut mooy juróom-ñeenti milliards yu a kaay ne de am na lu ca leerut de laneen lu leerut mooy xaalis dawalkatu jakarta yu kaolax ndangaan ba tax démb gouverneuru kaolax wax na président Macky Sall na ko ba léegi jotaguñ xaalis bi kenn joxuñu benn dërëm buñ jox jakarta maan yi njiiti réew mi Macky ne ana Mansour Faye kon lu ji njaaga yaay njaag de joxal gaa yi seen xaalis waaye leer leneen lu leer ba yegg ca nañ ja mooy ne imaam Aliou Ndaw mu Kaolack nee na fa jommi fa jaaxle xam bette lool bi mu déggee ne ëtt attekaay ba fa ko bëgg a yóbbuwaat xatte kook déglu koog lu ma la mënta wax fa jàpp na sax yëf yi daal ay wax la rek mi ngi xaar nag avocat yi dëggalal ko xibaar bi kàddoom yaa ngi ci l'observateur réew mi yéene kaay di ñu xamal na ab sapeur pompier fañ koo teg loxo fekk mu yore yàmbaa ay l'évidence yéene kaay na ko xaaram wax la bu ko gën a garaaw diwaanu Vélingara borom dëkk saare màlli fañ ko fekkee ca këram benn kilo yi borom dëkk di buy jaay drogue ndaw dëkk bu nar a bëri ay mandikat ah ka ko war a moo koy jaay ñaar ñu mandi nag ba doon xeex rayante ca ndakaaru njaay la xamee les écoles yi ne kaay ñu ko xamal yow seetal Souleymane ñu gën koo xam ci Père Jean mook beneen moromam ñoo mandi bay gayi gayee ko bajji bajji ca Dakar centre léegi Souleymane mu ne moromu mandikatam bi fa doon jéem a mu mujj ray ko ba mu faatu ñakk ba kanam Allah waa ma ne sapeur pompier boroom dëkk ñu fekkee ko moom it dorog ñaari mandikat mandi ba kenn ka ray ka man xaw ma kan moo tane moromam lii moo tax lislaam ne kullu muskirin xaraamun lépp luy mandi loo tàqale la ak sa sago fa xaraam ndax fa lay def loo ak tooxi doona neexu leen ci 4G plus fépp ci Sénégal ak seen plus mbégte bu promobile daa ngeen ci fekk junni crédit ak 750 mots yoo mën a jëfandikoo ci diirub weer lépp ci plus buy jar ñaari téeméeri dërëm dong daw leen gaaw ci sunu ñaar fukki agence ak juróoma yi leen gën a jege wala ci sunu boutique partenaire yi leen gën a jege fii ci Kaolack sunu agence de Cheikh Al Islam El Hadji Ibrahima Niass résidence Mame Diarra jano ak C3S téléphone 75 525 0051 75 525 0036 ngir yeneen i leeral def leen 175 dièse wala ngeen woo sunu service client ci 16 75 Promobile romb na plus Promobile moo leen doon may. li ci yéenekaay yi. jaajëfal ko bu baax a baax moom El Hadji Seydina Omar Cissé jaajëfal ko moom Kodou Seck madame Keneme mi nekkoon ci xayma léegi jaajëfal leen yéen itam fare woon ci déglu bi ñaanal leen kenn la kooku jàmm di ko sàkku ci yéen jaa ngeen jëf.